xaala laahu xaala rasulu nee na du fa wax lu may yàlla wax na yenent bi wax na sallallahu alayhi wa sallam waaye koo xam ne waaye koo xam ne nag yaa ngi oote ci bàyyi yaa ngi ot ci bàyyi te nanguwuloo jàng te nanguwoo jàng fen da ngay wax nee na soo waxee it da ngay wax du doon dëgg mukk ba pare ba pare da nga takkal eh, eh, yaram yaram eh, da nga jéem a takkal derab taalibay bàyyi dëgg-dëgg loolu ñu ngi ñaan na sëriñ bi nee na mi ngi ñaan waa télévision bi ne leen buñ bëgg a tee wax ak nit ku bokk ci baay. su fekkee ne dañoo bëgg a tee wax ak nit ku bokk ci baay. nañ oo ñi nga xam ne mën nañ nañ oo ña nga xam ne mën nañ ko xam nañ kan mooy bàyyi ku ko mënul nag ku xam ku mënul loolu boo ci ñëwee soo ci ñëwee bàyyi a ngi seede ne bàyyi a ngi seede ne dañ na ci yow dañ na ci yow yonent bi dañ na ci yow yonent bi dañ na ci yow Cheikh Ahmad dañ na ci yow moom mu ne bàyyi dafa doon mukk lu may topp yonent bi bàyyi du toon lu may jaam yàlla boo xam ne mi ngi teg tànkam ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ida saara xayru naasi bu fekkee yonent bi gën ji mindeef mi ngi dox surtout waraahu mu ngi dox topp ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kullu ma yunsabu lépp loo xam ne nag ñu ngi koy askane ci moom kon ilayhi ci moom ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu yuriju an hada tariqi te bokkut ak loolu nga xam ne moom la bàyyi doon dund bàyyi dañ na dañ na ca loola ñu koy a askane dañ na ca loola bu baax a baax gannaaw loolu gannaaw loolu sëriñ bi mu ne mu ngi sant gouvernement bi mi ngi sant gouvernement bi bu baax ay liggéey ay liggéeyam ca ay yëngatoom ak liggéeyam yëpp yàlla na may sëriñ bi nee na yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm mu réaliser ñu yàlla na yàlla may njiit li jàmm ba nga xam ne dana mën a saytu réew mi ni ko bëggee réaliser ñu réaliser ñu defal ñu taxqiq yàlla nañu yàlla dimbaleel ci gouvernement bi ba man ñoo dëggalal li nga xam ne. mooy Sénégal émergent. mooy. mooy senegal mën a jëm ci kanam. ay français lay wax. xataa ba nga xam ne dana mën a wéral bu baax a baax. li nga xam yàlla yàlla suñ borom.